gannaaw mbas bi mu duggee ci réew mi ak léegi gis nañ ni bu mu duggee tëngéej dëggu na ci réew mi lu yàgg yegsiwul tëngéej ndax mi ngi dugg ci réew mi le 2 mars egsi tëngéej le 7 juillet ba mu yegsee tëngéej le 7 juillet ak tey gis nañ ni am nañ ci euh, ñetti junne prélèvement ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett ci ñooñu ñu teste ñëpp am na ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk. ak ñatt yo xamni am nañ doomu jangoro ji ci ñatti témèr ak juroom ñaar fa ak ñatt yoy am doomu jangoro ji ñent yi ka importé lañu bi tim rew lañ joy témèr bi ak juroom ñatt fukk ak ben ka contact lañ manam xam nañ kan mo leen wal témèr ak juroom ñatt fukk ak juroom ñatt muy 188 ay ka communautaire lañ manam am nañ doomu jangoro ji mais xamuñ kan mo leen wàll tëngeej nak ñetti commune mo fi nek muy commune Rufisque Est Rufisque Ouest Rufisque Nord bu ñu xoolee ñi feebar ci commune bu nekk ñi feebar bi dal boo demee Rufisque Ouest gis nañ ni juróom-ñett fukk ak ñett la fa bi dal muy 83 boo demee Rufisque Nord juróom fukk ak juróom-ñeent la fa dal muy 89 boo demee Rufisque Est moom moo gën a fa la feebar bi gën a maanaam gis nañ téeméer. ak fuk ak ñett nit la fa dal muy 113 bo xolé limi len wax non du mat ñetti témèr ak euh, juroom ñaar fuk ak ñett manam 373 dan am lu ci dess li ci dess muy juroom ñett fuk ak juroom ñett muy 88 ñoñu am nañ doomu jangoro ji dekk ñu biir tëngeej manam ñoñ dañuy nekk ño xamni dañuy liggéey tëngeej wala dañoo joggé sax fu ñu nekk ñew tëngeej ndax xamé tëngeej wax wuul tëngeej wax leneen ñu testé len fi après ñu gis ni fi dañoo positif ñu yobulé ñooñu nag ñu ngi leen doon suivre bañ leen suivre ba tey jii ñuy wax ak yéen am na ñu ci wér ñi ci gën a bëri sax wér nañu ndax ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar muy 237 yi wér nañ ci ñëw ñu wér nag am na ñoo xam ne dañoo wéree ci fi nga xam ne mooy centre de traitement yi ñu koy wax CTI mooy hôpitaux yi ñen di hospitalisé juróom-ñeent fukk la ñu ak benn muy 91. ñi nga xam nak dañoo tok seen kër ñu sét leen sayt leen ba ñu wër ñooñu ñu ngi ci ñeen fukk ak juróom benn muy 46 am na ñoo xam ñi aussi ñàkk nañ ci seen bakkan ñi ñàkk seen bakkan ñëpp boo leen seetee juróom-ñaar yi ñu ñàkkee seen bakkan kër docteur maanaam ci centre de traitement yi am na ci juróom-benn yoo xam ne seen biir kër lañu ñu ñàkkee seen bakkan waaye lu ñu bëggoon leeral mooy juróom-benn fukk yooyu ñàkkee seen bakkan seen kër ñooñu seen particularité mooy ñooñu dañoo sonnoon trop avant ñuy sax am na ci sax ñoom ñëpp sax daanaka dañoo faatu ba pare ñu doo ko xam ni loolu la ndax am na ñoo xam ne da nga leen defal test balay test bi di génn ñu faatu juróom-benn yëpp daanaka noonu la dara loolu nag lu ñu fa bëgg a wax askan bi rek ne leen bu ñu ragal il faut que ñu teel a jóg ku ci gis lu lay metti wala ku ci am loo xam ni vraiment jaaxal na la nga jóg teel dem parce que teel a faju teela wér. mais boo bàyyee ba toog ba mënatoo noyyi ngay doog a ñëw hôpital ñu prélever la buñ la prélever fekkente ni test bi day def benn fan wala ñaari fan diggante bi ku mënatul noyyi moom ñakk mën yi moom du durer ñaari waxtu wala ñetti waxtu ñu ci bëri nag ci juróom-benn yooyu noonu la ñu demee kon bu fekkente ni bëgg nañ leen wax ñi nga xam ni ñoo ànd ak ñun tey nekk ci feebar bi ñu leen di suivre ñu ngi toll ci ñaar fukk ak ñett muy 23. ci ñaar fukk ñett yooyu fukk yi ak juróom-ñaar muy sat ñu ngi ci centre de traitement yi juróom yi ñu ngi ci seen kër toog ñu leen di suivre donc daal bu fekkee situation wu mbas mi la ci fii district sanitaire bu Rufisque noonu la tëdde